Alboury di nuyu Alaaji Mbay di nuyu Wulli bu baax di nuyu su di nuyu Mbay mi ma àndal di nuyu sama papa jee jóge ba étage euh, euh, Boucher nga may ma tuuti rek euh, Cheikh. Hmm? est-ce que duñu doo doo ko micro bi dafa mel daf ci toog. Boucher bi récepteur bi xam naa. Ah, xaaral mu ñëw defaral dafa tàng jër. bu ko defee déggante bi gën a neex. Boucher yaramam dafa tàng jër. te xam nga <laughs> kenn waru koo yeew. yaa ngi dégg. mu hmm. ngi koy defar. Hmm. tey technicien la. waaw mooy régler son bi. buusa ndànk rek. sama ndomb yi ngay téye bàyyi ko waaye. buusa ndomb yi dafa bëri. Cheikh gis nga ko. c'est que yi mu takk la. baal ndomb yi baal ndomb yi. xam nga ndomb euh, bu effet bi demee rek day jël day jël réseau bi. <laughs> baax na bu kiiw rek ñu jox ñu jox ñu jox adversaire am. war naa war naa kii ah. baax na. c'est bon mu ngoog euh, euh, le temps xëy na kenn ñëw defar ko cher. waaw waaw waaw waaw. ah baax na mu ngoog. c'est baax na. aja boucher bi oh, c'est bon boucher. <laughs> nice eh, effet ndomb yi la xam nga ndomb yi dafay am genre pouvoir boo xam ne ndomb yi la. <laughs> waaw baax <laughs> Boucher euh, euh, Boucher maa ngi jéggaluwaat. Eh? dina kenn dina ñëw léegi defar ko. waaw euh, waaw Cheikh defe naa mën nañ dem ci ci Mbay mën nañ dem ci Alaaji Mbay Alaaji Mbay mu néew la temps que ñu xool micro kii di Boucher Alaaji Mbay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu Mbay Mbay Galle. di nuyu ñu fekk ñëpp di ñaanal ñëpp di baalu ñëpp àq. di la nuyu yow Cheikh Sarr di nuyu sama tànt bi nga xam ni. fii la nekk ci télé bi waaye yaakaar naa new fi tey muy Alima Ndione sama jabaru papa si Mbaye di la nuyu yow soxna si ngay ku baax di nuyu per mbay ngoone di nuyu Bousse Ketchup di nuyu Albouri di nuyu wulli wulliwaat di nuyu bàccili mi nga xamante ne nii moom la moo géet jël lépp teg ko ci loxoom mu koy doxal doxal bu jaar yoon kenn amul lu la metti ci moom ma koy nuyu di ko jox mention di ko ñaanal yàlla na eggali ak jàmm tey nag euh, di bis boo xamante ne dañ cee ñàkk suñu kilifa gu mag muy Chérif Aya ay euh, xaadir yëpp am leen metti ak képp koo xamante ni jullit nga ñu koy ñaanal Chérif man sama benn xarit moo tax ma xam ko muy Xaadim Diagne mu seex na seex Sadbu ak yaayam Yacine Doucouré maa ngi leen koy jaale di ko jaale képp koo xamante ni nii jullit nga di nuyu ñëpp di baalu ñëpp àq di ñaanal sama yaay fi mu tëdd yàlla ko yàlla xaare àjjana di ñaanal sama papa bu baax di ko baalu àq aussi parce que na ma baal rek sama papa na dëkk ci di ma baal waaw di ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. amiin mm-hmm. jërëjëf Mbaye Galle. Mm-hmm. Alaaji Mbaye mi nga xam ne tubaar fa kàll moom it suñu soppee la suñu xarit la mm-hmm. waaye dañuy dem ci Alboury biram Penda Ndiémé mi nga xam ni boo waxee ren balaa waxee ci déwén nee na it ay waxi maamam kenn du ko yàq ku ko yàq di nga ko defaraat mbaa mu duma la. ku ko yabit da nga fekk muy nelaw Alboury ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax di la dalal ci Grand Plateau. waaw asalaamaaleykum. ñu ngi nuyu ñi ñi nekk ci plateau bi yëpp di nuyu Cheikh Sarr bu baax mi di nuyu champion yëpp di nuyu Pape Souley di nuyu tamit Mo Gates new fi waaye mi ngi mel ni mu ngi fi ndax Pape Souley mi ngi fi. di nuyu sama papa père sant yàlla tamit yàlla mi ñu kala kaw ci kaw bokkal ci kaw ci kaw ba dara jugewul ci kaw daanu sunu kaw kala jaaneel ñu suuf ci suuf ba ànduñoo dara di dugg ci biir suuf xanaa nga gaañ eh, ndeysaan di santaat yàlla bu baax a baax a baax moom mi dul jeex indi ñu fiy jeex muy àdduna dig ñu fi liggéey buy jeex ba pare digg ñu payoor bu dul jeex kon ñu gën a góorgóorlu ci loolu di euh, nuyu kilifa diina yi kilifa aada yi ak waa jàngu bi di leen ñaanal ci koor gi jóge lépp luñ ci ñaan muy jàmm muy salaam muy naataange ci réew mi yàlla nangu lépp euh, di leen di leen di jàmm ji ñaan mm-hmm. ndax jàmm sawaay jàmm du doy. déedéet du doy de. te yàlla sàkkul kum joxul jàmm yàlla lu mu bind rek jox na defal na la jàmm mais am na ñoo xam ne dañoo ne ci réew mi jàmm bugguñ ci dara <laughs> danga la ni wax kañ dem ngénte la sax ñu ne non dëj ba lañ jëm ndax moo ëpp ambiance kon nag di saxaat bu baax a baax ci jaamu yàlla. Mm-hmm. ndax boo juddoo ñu sikkar nga war nekk ci sikar bañ a ba sax sikkim mm-hmm. boo saxee boo dëkkee boo dëkkee ci sax sikkal ba sax sikkim ah Cheikh Sarr yàlla boo nekkee di sikkal ba sax sikkim mm-hmm. ngay di sikkal di sikkal bañ sëkkale ci sikk lala ah. yàlla war a fay day cëkk lala yàlla war a fay day cëkk te fay loolu cëkk fay loolu sëkk koo gën dëgg la di nuyu waa Jolof yëpp di sant sama papa bu baax a baax a baax di ñaanal sama yaay di wax euh, monsieur le maire Aliou Dia sunu sëriñ ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal waa Jolof yëpp mbuula mbay naan mbay awa daara yang-yang kàlloo si di ñaanal ñëpp di nuyu tamit waa kawlax ku ci mel ni euh, Moussa Diama ma fa ne ak daam ak Assane Dia ñooñu dañuy sonn ci man di nuyu waa Medina Baye bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ak waa Grand Médine ku ci mel ni Youssoupha ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit sama papa sama xarit Cheikh Bamba Diaral di nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Abdourahmane di nuyu Sénégal ñëpp ba leneen ñoom. jërëjëf Alboury kontaan nañu ci nuyoo bi waaye ak kàddu yu am solo yi nga xam ne rotal na ko mais xadi général dañuy gërëm bu baax a baax tamit suñu sponsor bi nga xam ne moom moo di Sobowa mi nga xam ni moom moo ñu indil euh, boisson yi nga xam ne mooy vinto ak euh, kola bu seddee neex waaye bu seddee sedd gën a neex kon mi ngi doon mën ngeen ko jënd ci marché yi grand surface yi boutique yi fu ngeen dem da ngeen ko muy kola bi ak euh, Vimto ñu fàttaliwaat tamit internet xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci page officielle bu Sen TV gën a partagé partage yu bëri ngeen di commenté waaye heure bu ngeen commenté rek daleen ci def seen numéro téléphone la waxtu nekk mën nañ leen jël jox leen seen ndogu mbaa jox leen seen xëdd dañuy dem ci ki nga xam ni moom trois casquettes la ci mbër yi moom trois casquettes la moom promoteur la maire la mbër la. Cheikh balaa ngay dem foofu boucher dafa mel ni micro baax na. boucher micro na. baax na mën nañ faa delluwaat moom dañoo dindi yi mu gawoon la ñu wàññi tuuti pour euh, ndomb yi xaw bàyyi. Ketchup ñu ngi lay nuyu boucher. waaw maa ngi lay fay Cheikh ah. di bëggee ñëpp comme ni ma ko waxee rek di nuyu ñu nekk ci plateau bi ku ci mel ni Fadam 2 Père Mbaye Ngoné Albouri Alaaji Mbay Wulli Souleymane ah di nuyu Tons bu moo géet di la nuyu yow Cheikh Sarr di nuyu sama jigéen bi di nuyu Assane Mbay mi ma àndal di nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu borom tele bi Bougane di nuyu Sénégal di nuyu sama nit ñi ak sama xaj yi ak sama wasila di nuyu Serigne Mountakha Bassirou bu baax di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wér ñaanal àdduna di ñaanal kilifa diine yëpp di ñaanal nag sama xarit Pape Diouf yàlla may ko jàmm may ko tawféex di ñaanal bébé baas di ñaanal Matar Diop suba teel ñoom Ismaïla Baas Ndoura di nuyu ñoom ñëpp daal Aziz Ala Ndiaye Iliman Lam Khalil Amadou Sall di leen bégee ñoom ñëpp di leen nuyu bu baax a baax a baax ah di nuyu sama papa Cheikh Ibrahima Kunta boroom Ndiassane di nuyu waa Touba saa Touba maa ngi koy nuyu bu baax ak Samba Ndour maa ngi koy nuyu ah di nuyu Aliou Fall di nuyu Yàlla Saw borom Guinée Bissau di nuyu Karim Fofana boroom Gambia di nuyu Cheikh ah di nuyu àdduna di nuyu sama mama Ngoy Fall. ah di nuyu Askia Touré bu baax di leen ndokkale ci bis bi tey seen conférence bi di leen ci ñaanal yàlla defal leen ci jàmm lépp luñ ci ñaan rek yàlla nangu ko nax ay nitu social lañ boo nee ngooy Fall ne Askia rek xam nga bëgg Serigne Touba ba mu jeex te man boo bëggee Serigne Touba rek moom nga ma ci loo may nax ci àdduna rek boo boolee Serigne rek yaa ma moom ndax ba ma xam ne nag may nax sax waaye bu dee Serigne Touba ngi jiital rek damay jël lépp tegee ne la jël Serigne Touba bi jiital di nuyu ñëpp di ñaan yàlla may ma ndam sama digganteeg alaaji mbay incha allahu rabi maa ngi nuyu sénégalais yëpp jërëjëf Ketchup kontaan nañu ci nuyu bi am na solo ñu ci profité ñu di nuyu Adja Ngoy Fall di nuyu euh, sangam bu tedd boobu di Serigne Askia Touré bi nga xam ne Serigne Saliou rek la doyloo ñu ngi koy nuyu baax a baax di ko jox yéeguwaayam euh, nee naa la dañuy dem ci ki nga xam ni nag deux euh, trois casquettes la mbër la maire la